mboolem xelloon kon rek mu doy ngeen xam ne lislaam dootul fay buur yàlla Ingilis fexe nañ ba sa yëpp di rëg-rëg ndax créé nañ ay pexe ne dafa am diggante ñaari couple yu sëy ay tappalanteeg ay naxante ba mu feeñ ñu wane ko wan la ne yow soxna si sa borom kër gi moom ñooñu ñooyam day tax li mu lay wax du dëgg wal bët ku wax borom kër gi ne sa soxna si génnam bi bari na lool fu ne mu dem fa tey mu seeti nijaayam bu gënaaw soo mu seeti frère am est-ce yàlla rek a tax ñi ngi tax sëy yi di ñàkk confiance te sëy moom benn secret la am mooy confiance feeg ñaar ñi ko sëq kenn ku ne wóolu na morom ma problème yi ci des mën nañ ko dépassé mais bis bu kenn ci ñoom jàppee ne morom bi da koy war rek sëy boobu naqari la te naqari ga mën na yóbbu ci tas kon ñoom ñi ngi participer directement ak indirectement ci tas te yàlla ñoom Oustaz Alioune Sall lañ wax ne li mu daganal li mu ci gën a bañ mooy passé sëy yaa ngi tas diggante xarit yaa yàqu diggante liggéeykat yi ak ñi ngi yàqu te lépp li gën a bëri la koy yàq information la bu jaar tes wala bu jaar ci xalaas kon du ñu ay émission yu baax et la lan lan lan lay jëriñ c'est-à-dire lan lan lay jëriñ lan lan c'est-à-dire émission bi lu muy ban service lay rendre société bi ban service xëy na bu ma paree ñu jot ñu ko xam lu wax ci service bu ëpp kenn jumu fi dëkk bi kenn jumu jullit yi ay moykat yàlla bi seen dem jàkk ci teewul li ñuy jàll sa jëkkër ji lu mu la wax day fet sa jabar ji lu mu la day fet loolu loolu dana defar am réew loolu mën naa defar réew su ko defee li ñu ciy teg mooy jéem a tënk yenn sabab yi nga xam ne jàpp nañ ne bokk na ci li indi fii ñu toll nii te mooy doomu réew mi juddoo ci réew mi yaroo fi nekk ay jullit ay jullit jur leen ñuy damoo nekk jullit di damoo nekk taalibe ba pare di xëy di gont ci li test loolu situation la bu ñu war a xool fu mu jógee ndax moom kenn sa doomu lool jullit taalibe man jullit laa man taalibe laa taalibe murid saade wala taalibe cheikh te boo xëyee doo jag ci soor kàddu koo yëkkati luy tas société bi kàddu koo yëkkati luy tas sëy la kàddu koo yëkkati luy tas xarit la kàddu koo yëkkati luy tax ñu xeeb sëriñ la léegi loolu il faut ñu comprendre lu tax loolu il faut ko comprendre suñ ko jéem comprendre du du sotti kon aspaab yooyu ñu tënk ci ba ci njëkk mooy taqsir kathir min al usari al muslima fii tarbiyati awlaad yi mooy ñu bëri ci ñun nangootu ñoo sonn ci yar seen njaboot yi ñu bëri ci ñun nangootu ñoo sonn ci yar njaboot yi dëgg dëgg la njaboot yi du ñun dong ko séq dañ ko séq ak ñeneen ñaar dañ ko séq ak école bi séq ko mu nekk li ma tuddee mbedd mooy état bi mbedd bi état moo koy contrôlé waaye ñun nañ def suñu war gar ba pare la suñ defee li ñu war ba pare xëy na bu école bi deful ni ñu ni tam lam mënaan yàq dana wàññi ko su mbedd mi deful ni ñu ni tam li mënaan yàq dana wàññi ko waaye léegi kenn ci ñun joxatul yitte jam waroon a jox yar jabootam xamal leen luy baax xamal leen ne dañoo war a baax te xamal leen ne mbaax boobu ñoom ñoo ko soxla du delloo ci njukkal kenn yow yaa soxlaa baax bu dul ci àdduna ñu ngi jëm ci àdduna boo xam ne àdduna bu nar a métti te ñi mu nar a gën gën a métti ñoom mu ñu yaree ko kon nag damaa bëgg nga mën a dékku àdduna boobu di ñëw àdduna boobu di ñëw ku yaru moo ko mën a dékku yaru nag mooy xam sa bopp ndax soo xamee sa bopp xam sa borom soo xamee sa borom xam sa bopp xam loo war a mel ak loo wër mel xam tam ne mun loo fee wéet ba kenn du xam looy def am na tiir boo mën a nëbb nit ñi mais am na ki ëpp solo ci xam li ngay def ki ci ëpp solo mun loo ko ndax nit ñi léeg-léeg bu ñu xamee li ngay def dul tax ñu sonal la wala ñu mënal la dara mais am na koo xam ne li mu xam ci yow bu ko jëfandikoo mu jeexital yow kooku nag mënuloo ko nëbb mooy borom bi tabaraka wa taala kooku xamal ko ne dund du bëri xaalis xaalis jumtukaay la du ay moyen du du ay finalité xaalis daf ñoo war a jàppale ci dund waaye waruñoo dund pour wut xaalis ndax lu dul nit rek lu dul nit rek yàlla da koo tàggat ngir nit am jàmm kon nit warta nangoo di di jaamu loo xam ne yàlla da koo tàggatoon bu jàmm yàlla dafa bind xaalis sant xaalis ne ko fajal soxla nit waaye yàlla binduwul nit ne ko demal jaamu xaalis ñun ëppal ëppal nañ war nañoo ëppal suñ bopp jaamu xaalis soo xamee loolu xaa du fu xaalis am nga dem fa boo xamee loolu xaalis am nga dem soo xamee loolu du fu xaalis taaje yi jël ko ndax bépp xaalis bu lay xañ jàmm adduna wala alaaxira da nga ko fa bàyyi loolu nag kenn du ko faraat ki ko man dañ koy tàmbaleek moom fa mu tàmbale bët bu set nga gis way jur woo xam ne dafay nattu ay njabootam di tasaare xaalis ci kër fu nekk mu teg fa dara teg fii cinq cent teg fee cent franc am ñoo xam ne dañ fay jaar romb yeneen triant yi ñoom dañ ko la ñala papa cinq yi wala ñu ne yaay cinq cent yi yooyu yooyu trias yu ndaw yi pour ne man du ko sàcc fekk boobu cent bi la bëgg a jële parce que bu la woonee cinq bi bu jëlee cent bi doo ko du yooyu yooyu trias yu ndaw yi am na ñoo xam duñ ko laal ku mel noonu bu ay njabootam màggee tax yóbbu seen fit ba tax ñuy liggéey foo xam ne la fay jógee lu yàq nation la ay misaal yu bari am na ci ci wàllu yàq ci wàllu yar yàq seen njaboot ci muñ luñ amul farata la de farata njaboot ci muñ luñ amul farata ndax kenn mënta mën sa bopp toujours te boo dee def seen njaboot lu seen xel daj ñu jàpp ne dañ ko war a am buñ ko amul ca wut ko feneen te fu ñu ko wutee feneen man nañoo wane ñàkk jom foofa man naa tax ñu teg leen fu ñu la tegu teg la fu ñu la tegu teg leen ñoom fu ñu la ñu ngi nekk ni benn xissa boo xam ne rahmatullahi alayhi Mawlaana Sëñ Haadi Touré moom lay wax ne moo ko def benn soxna su baax dem fas Touré dem ci daara gis taalibe yi ñu sonn lool xiif taalibe moom ku wax ne du xiif foofu loo dëkk yu xiif ndax xiif a ngi tàmbalee fi boo lekkee mu jeex suur naa te desut moom rafetal la rek ku ku suur da ngay desal ku suur da ngay desal te daara yu bëri te bëri des amul soxna si yaramam daw ndeysaan ku baax la soxna su baax xamul daara mu ñeewante xale yi mu daal ñibbisi rek daal di song waxandeem jël fa xaalis bëri dem ci dëkk jënd ganaar yu baree bare bare indi ganaar yi ci kër gi soode leen suqi leen defara defar ba mu rafet mu togg mu préparé ganaar yi bañ ñor mu def ko ci ñaari bool yi jël oto dem Fass Touré nuyu suñu aadi ziare ko ne ko damaa yàkkaloon daara ji tey nga may ma nangul ma ma yàkkal daara ji tey seen bàjjana la yàkkal Ndiaye na ko jërëjëf kontaan ci lu mu am lool soxna si dem mel ni daa fàtte bool bi ku ñëw rek nuyoo xeel bool bi génn dem bool ba yendu fa fanaan yenduwaat fa fanaanaat fa ci tàngooru fastor tàngooru Sénégal ñu jékki-jékki mel ni dafa am luy xeeñ ndekkee ganaar yi def ne am ku ñëw ñu ko ci gën papa dafa mel ni am na luy xëy de mu ne mbaalu loolu jëlal jël wàllu jël gas ci gannaaw ko suul ñu dem ci gannaaw kër ko ñu wëq ca ñaari bagaan ya suul xam nga loolu soo ko nettalee ku xamul lu mu demee daf naan góor gi dafa soxor ndax ñàkk mën a toggal say taalibe ganaar kay doy na waaye ñu togga leen ganaar ba pare ci mos ah waaye mu jar naa la boo mu doy ngeen xam ne lislaam dootul fay